ko original mi ñuy gunge euh, tout le temps ci euh, matinal bi ñu egsi ci jàngat bi ak docteur Ousmane Ndiaye directeur exploitation météorologique ci ANACIM docteur xanaa ñu nuyuwaat la rek. ñu ngi lay fay soxna mm. Naata di kontaan lool ci dalal bi ngeen di dalal ci émission bi. Mm. alors euh, docteur muy am ay images yoo xam ne wër na àdduna fan yi mm. ay taw yu méttee métti jur ay mbënd lu ci mel ni fële ca Chine ñoom on parle d'inondation du siècle. ak yàqu-yàqu yi mu fa am ay villes yoo xam ne daanaka ndox mi dafa fees dell. Dubaï itam nemmeeku nañ ko laaj bu njëkk bi mooy loolu lan moo ko waral. waaw comme ni nga ko waxee gis nañ temps yi 16 17 euh, Dubaï ay taw yu takk yoo xam ni am nañ ay taw yi nga xam ni mosuñu ko am ñoom xam nga Dubaï désert la. Mm-hmm. donc aéroport bu amee 120 millimètres xam nga musiba la donc moo tax aéroport bi tëj école yi tëj. am na dëkk bu ñu naan al ayin am na 254 millimètres. dëkk désertique loo xam ne mosuñu koo am. taw yi ma wax nag ci 75 ans bi ñu commencé natt ay taw ba léegi mu 1949 mosuñu am taw yu ni mel. donc mu indi jéeg doy waar Oman aussi dëkk bi mu dendal. Mhm. am taw yu doy waar comme ni nga ko waxee nag indi ay jafe-jafe yu bëree bëree bëri Chine le 22 passé dañu am ay taw yu doy waar. maa ngi liir nii euh, seen niveau euh, deex yeeg euh, dem na ci cinq virgule huit mètres. Hmm. muy lu bëree bëree bëri. donc yooyu mooy tolof yu doy léegi nag météo yeeg ñooñu jàngat nañ ko gis nañu lu bëree bëri daal dafa lii ak li ñu naan coppite ci jaww ji muy changement climatique. yi xam ne ñoo koy dund temps yi ci dëkk yu bëree bëree bëri mais nag lu tax mu am période boobu mooy aussi géej gi dafa tàng tàng bu doy waar. xam nga boo xoolee géej gi gën a màgg ci géej gi gën a rëy ci géej gi. ñu koy woowee océan Pacifique. am benn phénomène boo xam ne xam nañ ko muy El Niño hmm. mooy bu loolu xewee muy géej gi dafay tàng tàng bu jéggi dayoo ci période bi mel nii moom lañ commencé vivre mu ngi jeex sax moom moo tax waaye nag océan bi nga xam mooy océan Pacifique mooy océan bi sës rëkk ci euh, euh, péninsule arabique dafa tàng-tàng bu jéggi dayo aussi hmm. moo tax ñu am taw yi xam nga Arabie Saoudite amoon na ko temps yële ca gannaaw donc moom daal la jàngat ni moom moo indi taw yu mel noonu gis nañu nag li xew nag dafa mel ni rek ay cyclone cyclone mooy li xew ci géej gi hmm. mais configuration moom si le plan météorologique la ñu amoon moo tax euh, mu indi taw yu jéggi dayo yooyu euh, hmm. taw yu méttee métti yi ñu xew ci géej hmm. loolu daal mooy jàngat bi ci jàngat alors euh, ummi ummi mi ngi ci plateau bi ak ñun <laughs> même mouvance bi soxna naata ummi elle est là sur le plateau avec nous donc waaw damay même kii rek dañu gis Burundi y a déplacés lié également au phénomène. Kenya démb ñu ko doon wax ci inter bi. am na également trente morts et plus de cent vingt mille déplacés. ndax même phénomène bi waaw parce que li ma naan océan Indien mooy océan bi xam moo moo moo rës moo së moo sës rëkk ci mm-hmm. ci péninsule mm-hmm. foofu la Kenya nekk ak dëkk yooyu yëpp donc tàngoor géej googu aussi moom moo indi conséquence yu mel noonu que bu ñu xoolee cóolóol muy vapeur lay jógee mm-hmm. donc bu géej gi tàngee day indi plusieurs vapeur d'eau parce que dangay tàngal ndox donc moom moo tax bu tàngee rek day jox donc vapeur d'eau bu bëree bëree bëri mu indi taw yooyu donc Kenya ak yooyu yëpp même phénomène yi la ñu may global waaw ci même lancé ah, Euh, mën nañu xaaraat même taw yi répété wu waat euh, ci euh, ay bés yu ñu. prévision lañ ci wax. waaw Dubaay bi ñu defee seen prévision yi lañ jàpp ni mën nañ amaat taw yoo xam ni peut-être du toll noonu. Mhm. mais taw yoo xam day continuer ci période boobu ak ak Chine loolu lañu loolu mooy prévision yi ñu ñu mujj am Chine jàpp nañu semaine yi fi toll nañ am accalmie mais après yaakaar nañ ni taw lañ nekk seen saison pluvieuse lañ nekk. Mhm. war nañ mën a Euh, bonjour docteur. Euh, on s'est déjà rencontré à l'ANACIM et puis on travaille en collaboration hein, mm. Euh, puisque données météo yi may jox yëpp ci ANACIM lay jógee oui oui donc on travaille euh, tous les jours daanaka on peut dire mm. ensemble man j'ai une euh, par rapport à la pluie en fait dañu wax ni que maintenant on peut créer la pluie mooy mm. euh, comment ça s'appelle stimuler les nuages c'est la pluie artificielle pour mm. lutter par exemple pays am par euh, exemple la sécheresse. Mm. on peut stimuler les nuages. bien sûr Oumy di kontaan lool. Euh, mooy li xew Qatar li xew Qatar di kontaan lool ci liggéey bi ñuy liggéey donc euh, comme ni nga xam ne ANACIM dañ bëgg aussi. Mm. vraiment sunu li produit yi ñu koy mën a di jàllale bu baax a baax donc relation bi. muy mm. partenariat public privé lu ñu lu ñu lu ñuy kontaan la lool. waaw ci ñëw ci question bi waaw li ñu naan plus provoqué ensemencement nuage wala am na ñu naan création plus Euh, ñu koy wooyee baawaan fii Sénégal am nañu programme bi donc tey technologie bu toll na fi nga xam ni njàngat mi xam nañu la moo tax bu ñu amee niir bu rëy des fois du taw am niige bu rëy a rëy day taw donc bu ñu ko jàngat lañ xam ni am na yoo xam ni leen nuage bi di manqué yoo xam ni ci la vapeur d'eau bi di mën a sëkkandiku pour joxe taw hmm. donc bi nga xamee nag lañ commencé nag di def ay opération xam ne dañoo manqué ndox bu ñu amee nuage yu mel ñu dooleel nuage bi ci loo xam ne lu mel ni xorom la dañuy jël sànni waaw mën ko sànni ci suuf tiire ko ay kanu comme mën ngaa jël avion mu bombardé ko léegi sax gaa yi ngi utilisé nest pas ay drone nga xam ñooy dem bombardé ko hmm. donc boo ko bombardé da nga jox nuage bi doole da nga gis ni ñu koy defee da nga xool ni nawet mel luy baax am doole bu baax mën a joxe ay taw loolu nag comme ni ma ko waxee Dubaï ak tey yu mel noonu dañoo am désert ay Maroc Sénégal ñu mel noonu dañuy am taw yu mel noonu dañuy bëgg nag des fois di ko def opération yi donc lu science amal la États-Unis Russie ak ñëpp dañ cee xam dañ cee màcc ba ñu amee nuage yu mel noonu dañu koy def

mais fu mel euh, ni pardon hmm. Naata excuse-moi hmm. fu mel ni Niger par exemple hmm. ça se fait puisque y la sécheresse là-bas il pleut pas beaucoup foofu dañ je pense ci euh, li ma jot a gëstu en tout cas parce que damay jàngaan toujours j'apprends euh, foofu noonu dañ ko fay def au Niger Mali Burkina Sénégal yëpp dañuy def ensemencement des mhm. te boo xoolee dañu jógoon ci ay sécheresse yu métti métti. léegi taw xew bëri na alhamdulilah. jóge sécheresse yu métti métti dañoo xalaat yenn solution lañu mën a def donc boobu la ñu xalaat ni dëgg dëgg ensemencement des solution la technologie bu am la donc ci lañ loo bu dee Sénégal jokkaloo ak Maroc xool nañ mën a def bu ma dee ensemencement donc Niger am na fa Burkina am na Mali am na fa Sénégal am na fa. et pour finir avec cette question pour finir avec cette question est-ce que ça change quelque chose ci coppite jaww est-ce que am na lu impact bu muy am ci changement climatique bi le fait de jouer euh, d'utiliser les nuages ba pare di leen transformer en quelque sorte. waaw bis boo xam ne nature moom bis boo ko laalee rek coppi ko rek lu naturel. en général day am ay ay jeexintal. Mm. léegi nag question bi kay mooy est-ce que jeexintal yi am na significativité cest à vraiment. cessé dañu waroon nekk nga yóbbu ko taw bi foo xam ni dinañ mën a am njëriñ ci askan beeg yooyu question bi mm-hmm. mais boo gisee am na ci Sénégal dañ koy gis des fois lu bëree bëri def nañ ko gis ay nuages yoo xam ni ñu ngi jógee Mali mm-hmm. ne taw yu takku takk mm-hmm. donc lu am am solo la très bien docteur euh, euh, sax mooy euh, Sénégal bu ma juumul ci nawet 2022 bi defe naa amoon na ay alertes yu amoon bien avant nawet bi di commencé doon wax ni ndox bi dina nar a bëri ba ciblé ay zones yu nekk fii ci Afrique léegi ñun li ñu gis Chine ak Dubaï euh, ci Émirats yi sax dañuy laajte ba xam ndax Sénégal am na risque ci nawet bii di ñëw ñu am euh, quantité de pluie yi nii ak yàqu-yàqu yi mu mën a indi. Euh, quantité pluie yu mel noonu toog tolloog moom peut-être mënu cee tontu. parce que mm. loolu dafa précis mu ëpp. waaye nañu am que maanaam dañu am ay inondation taw yu jéggi dayoo waaw. Mm. question bi mooy waaw la. li ngay wax effectivement moom la lañuy def comme pour ñun gis nañ Euh, yu bëree bëree bëri ci askan wi dañuy lëkkaloo ak taw xam nga taw bu jotee rek napp beeg sàmm geeg you know euh, mbay mbay meeg lépp dafa lëkkaloo lëkkaloog euh, mm. napp même même même santé bi sax mm. dafa léegi doon dañuy def naan def benn genre lël muy seminaire mm-hmm. boo xam ne bu dee nawet bi dee jub si en général fin avril lañ koy def début mai. Mm-hmm. daal di wax nag à peu xayma yi lan la ñuy yaakaar ci taw ci gox yu bëri Sénégal. day permettre suñu moroom euh, nappkat yi supposons xam ni affaire day bëri taw bi day bëri ñu xool bu baax la ñu moytoo dem ci géej gi mais day tax surtout secteur agriculture. Mm-hmm. ñu mën a planifier bu baax a baax xam yan genre de variété la ji est ñu ngi yaakaar taw bu bëri yu bëri yu mel noonu dafay estimation. Mm-hmm. donc loolu lañ def souvent ak euh, di seen xam-xam dafa màcc ci mbay. incha allahu rabbi euh, suñuy euh, experts yi ñu kii ciy travaillé. Hmm. semaine bi defe naa vendredi la war a jeexal te semaine prochaine incha allah la am benn lël euh, fii Sénégal pour mën a antu ci loolu. wax ay bés bi ñu génn gisoon nañu aussi ay taw yu jotoon a am. fii ci hmm. Sénégal ba ñu waaw ëgg xaw ma ëgg la xaw ma sax hmm. waaye daal am na ci yu nga xam ne millimètres yi sax xawoon na takku. ba nit ñi yaakaar ni nawet bi dafay gën a teel a ñëw. taw yooyu lan moo ko provoqué. waaw taw yooyu taw ëgg la xam nga fi ñu toll nii bu dee ñun période bi ñuy nekk nga xam ni du am taw mooy booy janvier boo xool ba jàpp mars avril période boobu Europe ci lay commencé taw taw yu bëri mais ji commencé disparaître donc euh, des fois dafay am ay systèmes yoo xam ne ci Europe lay jógee des fois xëcc ci taw carrément xëcc li nga xam ne mooy coole mooy humidité bi golfe de Guinée indi ko sunu sunu suñu côté yi des fois moom aussi lu ñu naan dépression suñu langage mooy yoo xam ne daal dafay mën a xëcc ngelaw li nekk ci booru Sahara mën naa xëcc aussi euh, taw bi ci golfe de Guinée mu ñëw intéressé bi loolu moo amoon ñu koy woy pluie de hëg loolu ñu xam la pluie de hëg la mais amul euh, relation ak saison pluvieuse bi pluie de hëg la yoo xam ni pluie yi nga xam mooy am ci noor bi engin la temps en temps lay am day ànd ak sedd engin boo xoolee mm-hmm. taw yu sedd sedd la effectivement am nañ ci quelques taw ñu enregistré ci euh, ci jamono yi mu nekkoon sax ay taw yu takk yoo xam ci yenn yenn yenn bëri bi am ay jeexantal yu bëri nag ci càmm ji yu mel noonu donc effectivement plus de ëgg la loo xam ni amul relation ak saison ah, ci des mooy tàngaay bi jamono yi mm. gis nañu ni jéggi na dayoo dem mm. nañu sax ba benn moment Oumy mi ngi doon wax ni ressenti bi dina egg ba cinquante degré ci yaramu doomu aadama yi. Mm. Euh, tàngaay woowu yi tamit euh, lan moo ko waral ndax mën nañu séntu mu continuer wala boog température yi mi ngi wàññeeku. waaw tàngoor bi moom ma dafa lii ak ñaan ñaari mbir mooy période tàngoor lañu nekk bi ci des mooy changement climatique. Mm. ñu koy woy réchauffement climatique ci tubaab pour wane rek euh, sensation climat tàngoor bi mooy lépp solo fi ñu toll nii àdduna bi fi mu dañoo euh, li nga xam ni moom muy indi tàngoor muy gaz yi mooy gaz à effet de serre dañ ciy produire lu bëree bëri loo xam ni jéggi na dayo boo gisee COP bi ñu wax ay COP di dajale di waxtaan yooyu yëpp ak li xew euh, Dubaï yu ci bëri changement climatique bi la day indi nag phénomène ñaan phénomène extrême di ko indi muy vague de chaleur muy ay poussières yu bëri muy ay taw yu takk yoo xam ni ci ay dëkk yoo xamuñu ko woon loolu mooy changement climatique loolu la ñuy dund Sénégal lañu ni tàngoor bi dafay dégg day chaque année boo xoolee ñu am tàngoor yoo ne day na waar avril bi passé bëri yoo xam ni enregistré nañu température yoo xam ne tàngoor fa mosuñu ko am muy Koungheul dem na ba 47 virgule 8 boo demee Matam Podor am nañ fa 50 degré Celsius yu di jéggi dayoo loo xam ne xalaatuñu ko woon donc ñun suñu problème mooy dañoo jàpp ni tàngoor dafa bokk ci ñun moo dañu ko sentir mais day def effet yu garaaw a garaaw a garaaw da ngay dégg des fois ñu woo ñun en tant que directeur météo ne ah, tàngoor bee tax fi ñu feebar na wala maari day tàll ba kenam mais yu mel ñu ngi am liggéey bu doy waar bu bu am solo di moins bu ñuy liggéey ak euh, waa direction générale de la santé am benn bulletin climat santé di travail ak chaque fois ñun bu ñu prévoir tàngoor yu mel ni dañu leen koy yónni ñoom ñu wax yan jeexinte la am ci wér-gu-yaram comme ça ñu avertir population yi te ñu ngi essayé dem ba essayé wut ay alerte sax ñuy sànni pour nit ñi mën a xam tàngoor yu mel noonu tàngoor bi day continuer effectivement prévoir nañu période yi tàngoor bi dafay continuer période bi mooy yi nga xam dafa jege géej boo xoolee Saint-Louis Dakar da ngay sentir ni temps yi euh, géej gi ñu jege mais boo xoolee boo demee à l'intérieur ay Touba ay Koungheul yu mel noonu tàngoor bi jéggi na dayo donc tàngoor bi la am à cette période là ba taw bi commencé en général ci lay gis ni féexaay bi commencé ndax am na forcément rapport ak ak daay bi parce que gis nañu li xew Canada jamono ji ak incendie yi ñu fa nemmeeku dañu naan souvent intervention li ko gën a jafeel mooy. Euh, Euh, canicule bi ñu fa nemmeeku jamono ji hmm. est-ce que forcément loolu am na impact si li ñuy dund fii surtout dans la zone euh, est du pays parfois. waaw xam nga boo xoolee période bi ñu toll taw yi dafa amatul taw ñax bi yëpp dafa wow. Hmm. wow na wow bu dégg dayoo donc boo gisee bu tàngoor yu bëree rek. tàngoor bi di ànd ak yenn ngelaw yi day tax ñax yi rapidement ñu mën a tàkk mm-hmm. wala kenn taal daay bu ndaw rek mais tàngoor moo koy yóbbaale ak ak ak ngelaw loolu en général am na relation boo xoolee période mm-hmm. tàngoor yu métti métti yi dañuy gis des fois dañuy am ay feux de brousse yoo xam ne naturel lay nekk ñuy gis yenn gox yi mm-hmm. oui docteur est-ce qu'on peut parler du gaz à effet de serre parce que mooy indi réchauffement climatique bi. lu a lu jar a wax la. parce que lan moo sokkee lii lépp mooy doomu aadama tey euh, gaz yi ñuy muy suñu oto yi. suñu engins yi suñu usine yi mooy gaz yëpp ñuy sànni gaz bi demee ci kaw asamaan suñu koy woowee a à effet de serre dafay téye tàngoor tàngoor boo xoolee en fait ci suuf lay jóge di yéeg ci kaw léegi li koy téye mooy tàngoor mooy gaz à effet de serre. li koy indi c'est l'être humain. l'être humain moo ko yokk. lu naturel d'abord gaz à effet de serre dama dund ci kaw àdduna hmm. moom moo tax yeneen planète yi boo xoolee lune moo ngi jege mais li ñu fi dund nañu xalaat ay Mars ak parce que hmm. lune amul amul amul hmm. donc gaz à effet lu am am solo la sans effet amul dund ci kaw suuf waaye nag le fait ñu yokk nag gaz yi lañ yokk effet de serre yokk tàngoor tàngoor bi nag bu jéggi dayoo tey mu indi lii euh, vapeur di yokk yenn océans yi di chauffer avancée de la mer yu mel noonu ay acidification des yëpp moo ko indi ak érosion côtière rek yëpp mooy conséquences yi donc moom mooy problème bi ñu am tey dëgg dëgg dëgg mooy donc gaz à effet de serre moom moo tax ñuy réunion di toog àdduna bi comme euh, jaww ji amul frontière ñoo nañu toog ñun ñëpp xool nan lañu mën a fexe ba wàññi gaz à effet de serre surtout dëkk yi nga xam ni seen ñiy produit di gaz à effet de serre dafa jéggi dayo mais ndax Dubaï sax bokk ci moom ci boppam Inde tamit ci la bokk parce que waa pétrole te pourtant ñoom ñuy gën polluer euh, li ñu leen di reprocher mooy ñoom ñooy gën polluer te bu ñu demee ba war a dugal xaalis peut-être. pollueur payeur voilà exactement concept pollueur payeur boobu lee daanaka du ñoom ñoo koy jëmal lu bëri. chaque fois ci COP yeeg yooyu dañuy dégg euh, ñuy am euh, genre inquiétude yooyu. waaw comme bu ñu demee ba science wan nañu ñoom ñoo sooke mbir mi. Hmm. te ñun ñoo ciy gën a souffrir parce que ñun amuñu doole. pour mën a pour loolu. dañ leen hmm. yu mel noonu mën a jàppale dëkk yu baax a hmm. mën a fexe ba dëkku li nga xam ne mooy jóge ci changement climatique waaye ba léegi nag fonds yi moom dugg wuñ ko ni ñu ko yaakaare hmm. yu mel noonu donc euh, loolu daal war nañ cee góorgóorlu baax ci COP yi nag ñu ngi ko ñu négocier fonds vert yi est-ce que c'est au niveau local ñun Sénégal am nañ fonds vert waaw am nañ fonds vert am nañ accès fonds vert am nay projet yoo xam ne fonds vert moo ko financé hmm. Sénégal waaw ñun béykat yi euh, ndax mën nañu xaar nawet bi teel a teru wala boo kañ la ñu war a mën a ji suñu dugub ak yooyu. <laughs> waaw loolu léegi bu wax ci moom ba xam naa day xaw a teel mais xam naa semaine prochaine incha allah. incha allah ah, ci pour mën a jàllale dem naa balaa ñu koy NASA gis nañ euh, benn phénomène boo xamante ne temps yi ñu ngi ciy wax euh, ak euh, le le le boobu nu tudd na euh, voyageur 1. Mm. boo xamante ne dañ ne dañu dafa dañu def prouesse parce que 1977 ak léegi. Mm. liggéey bi mu doon def dafa xaw wàññeeku. Mm. loolu ndax euh, mën nga ñu ci baaxee tuuti. waaw loolu astronomie la waaye. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga boo xoolee vers les années 70. Mm-hmm. ñoo commencé woon di xalaat nan lañ parce am nañ ay yeneen dund yeneen façon dund yu am fenn. ñu lancé woon nag ay prop ay kii yu bëree bëri. ay engins yu bëree bëri voyageur 1 voyageur 2 et cetera ñu dem génn. léegi voyageur 1 fi toll na fi nga xam ni dépassé na presque ñun fi ñuy fi ñuy dëkk. commencé ñu envoyé information loolu nag nekk loo xam ni jàppoon nañu li muy utiliser comme euh, comme euh, essence ak yooyu jàppoon na day jeex jàppoon nañu aussi di ko mën a envoyé mais gis nañ temps yi ba léegi muy kon dañu envoyé information yu jot yu am solo déjà. Mm-hmm, mm-hmm. am na beneen aussi bu ñaar naan James Webb. bu ñu xam ne mm-hmm. euh, JWS boo xam ne aussi envoyé nañ ko bu ñu joxe information yooyu day baax. ñu mën a xam fan la euh, science nan lay dundee. Mm. lan la mbiri di changé étoile yu mel noonu dañuy permettre ñun ñu mën a xam bu baax a baax yi war a xam ni yaakaar nañu mën nañu dal dans le futur pour mën cee préparer. Mm. ndax mën euh, mooy laa Niña waaw mm. effectivement loolu ci Pacifique lay xew océan Pacifique mooy buy tàng buy sedd la ñuy ak laa Niña. ñu ngoon ci El Niño moo indi tàngoor yeeg yu mel ci àdduna bi mais fi ñu toll nii mu ngi jeex jàpp nañu juin incha allah El Niño dafay commencé dee. Mm-hmm. La Niña commencé juillet août septembre et merci Très merci docteur Ousmane Ndiaye. Mmh. directeur exploitation euh, météorologique ca ANACIM ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. reste avec nous merci ñu jàll ci ponk bu mujj mooy suñu gan ñu dalal ko.